wa barakaatuhu ñi di leen ne weer wi na weer wi feeñ na weer wi feeñ na mbooloo mu bari gis nañ ko weer wi feeñ na weer wi feeñ na weer yi feeñ na mbooloo mu bari gis nañ ko